nu ngi dellu siwaat di leen nuyu di leen ziyaara bu baax di leen ndokkeel di leen baalu xàq te di leen baal di ñaan sunu borom mi am njéggal yàlla na nu boole defal njéggal yàlla ñu nangul mboolem sunu ibadat mboolem jaamu giñ ko jaamu di ñaan mu dolli tawféex dolli wér dolli kàttan ci sëriñ muhammadul muntaxa bashir mi toog toogaayu xaadima rasuul yàlla na fi yàgg lool te ànd ak ba naal yep mu matal ko ko ak talibe yep ñu ngi ñaanal bu baax sunu wasila serigne Hamzatu mu serigne Suhaybu di ñaan yalla defal ko defal ko tawféex mu yag fi lol ci kanamu njaboot gi ba am ngërëmu serigne Touba naka nonu tam ñu ngi ñaanal serigne Ahmadu Mbàkke yu fay mi nga xamni mo nek nekk khalifa bi ci Dakar gep yalla nako yalla doli dolli doli ko ba mu matal naal yépp àggale liggéey bu tedd bii ko sëriñ bi dénk mu mel ni mbokk yi ñu ngi dellusiwaat ci seen téere masaalikul jinaan ñu ngi nekkoon ci buntu basmala muy bisimillahi irrahmani irrahim njariñ yi mu làmbool ak yi ci sëriñ touba jàngale yépp radiallahu anhu ci képp koo xam ni am nga tawféex di ko zikkar yi la ci yàlla dig ak kaaraange gi mu la ciy defal ak yool yi mu la ciy fay tey ñu war dem ci buntu basmala boobu àggale fi nu taxawe woon waxoon na ni wa kullu man qara'aha inda ruqaad ixda wa isriina faxat bilas diyaad fa innahu yaamanu mawtal fajati wa kulla saariqin bi tilka laylati waxoon na ni képp ku yàlla dogal bala ngay tëdd guddi nga daal di jàng bismillaahi rahmaani ñaar yoon ak benn bala ngaa tëdd di nelaw nga jàng ko ñaar yoon ak benn nee na guddi googu doo ci am deewu mbetteel te sunu boroom dina la xaar ci guddi gi ba sàcc du dugg ci sa bërëb jël fa dara ci googale guddi nga jànge bismillaahi rahmaani ci li mu ñaar ak benn mu ni tey yàlla dinañu musal ci seytaane ak ayam ak kudul shaytané sax ba faawu wa kullu shaytanin aazana allahu al ahad min sharrihi wa sharri ghayrihi abad muni wa in qara'taha wa anta tahtawi fa anta tahtawi bi kulli harfin mustaqilin taxtawi daalu uluufi xasanaatin wa tuxat anka xataaya misluhunna la galat mu wa in xadaxta an dem jang nga basmala batay bismillahirrahmanirrahim fa anta tahtawi kon yow mi ko jàng di nga laq bi kulli harfin ci bepp harfu basmala bismillahirrahmanirrahim rahmani rahim gi kese wala nga jël seen gi kese harf bu mu ci doon mustaqilin muy araf bi beru mom kep di aji beru tahtawi di nga ci amé dalu ulufin lu tolloog junni hasanatin ci ay rafetal kon ben araf basmala bu ne yalla dina la ci fay ñeenti junniy rafetal wattu hat anka ta def na la sipil walif yow xataayaa ci ay ñaawteef yow defoon misla hunna lu toll ni bobu lim kon di nga am tam ñeenti junniy ñaawteef yo jëfoon yalla dina la ko sempil ba comme ni ñi sempé dekk ba dula lor sa digënté ak sa borom ci jay basmala ci arafam bu nek muni nak la galat lima wax amul ben njumte noni la ko yanantu bi alayhi salatu wasalaam waxe mu ni wa misluhunna darajaatin turfau laka isa xalasta xiina tasrau mu ni wa misluhunna ak kem lu mel noonu dara darajaatin ci ay daraja turfau yooyu def na la ko yëkkatil laka ñeel la isa xalasta ndeem sellal nga ko ci sa xol bi nga koy jàng jëmmi yàlla ji rekk a tax xiina tasrau ca jamono ba ngay sóobu ci di ko jàng di ko door bu fekkee da nga caa yéene yéene bu rafet sellal ko nga jàng bisimillahi rahmani rahim sëriñ tuubaa nee na ci benn araf bu ne ci bisimillahi rahmani rahim yàlla dina la ci fay ñeenti junni rafetal simpil la ci dindil la ci ñeenti junni ñaawteef yëkkatil la ci ñeenti junni daraja mu ni fa adadul rasman tuaddu tu'tabar adda zabaniyati tisata asar mu ni fa adadul xuruufi mu ni limu xarafi basmala rasman ci nombre tu'tabar def na ko xayma adda zabaniya mu tolloog limu bëkk néeg yi yàlla dénk sawara xam ngeen ni malaaka yi yàlla dénk sawara ñu koy saytu fukk lañu ak juróom-ñeent kon boo xoolee xarafi basmalatam fukki araf la ak juróom-ñeent bismillaahi rahmaani rahim moo tax sëñ Tuubaa ni kon fa adadul xuruufi mu ni adadu xuruuf ya maanaam limu arafi basmala rasman ci tënk ko ci nombre toxtabar def na ko xalam adda zabaniya tisata asar kem limu wëkk néeg yi nga xam ni ñoom la yàlla dénk ci malaaka yi sawara muy tisanta ansar muy fukk ak juróom-ñeent kon bisimillahi rahmaani rahim ay xarafam mu ngi toll ci fukk ak juróom-ñeent mu tolloog limu malaaka yi yàlla dénk sawara wala iyaasu billah ñu koy wattu mu ni wa anna man zakaraha minhum najaa kama bihi hadithu khairil khalqi ja muni wa anna man ni kep ko xamni xam ni zakaraha tudd na basmala bamu jeex ni bismillahir rahmanir rahim muni naja dina muccu minhum ci fukk ak juróom ñenti malaaka yoyu yalla denk mbiru safara duñ la ca tabal mukk ci jang gi nga jang bismillahir rahmanir rahim muni kama ja bihi hadithu khairil khalqi nit ki nga xamee ni nii ma ko nettalee man sëriñ Touba ni la ko xaddiisu yanant bi alayhi salaatu wasalaam indee ko comme ni ma ko waxe képp ku jàng bisimillahi rahmaani rahim muy fukki araf ak juróom yàlla dina la musal ci fukki malaaka ak juróom seetu sawara ba doo sawara sunu borom mu ni alayhi afdalu salaati wa comme tuduna na yanantu bi nak xam ngeen ni sëñ bi fum ko tuddé bala mo jall dana ñaan ndax tuduna ko légui ni hadithu xayril xalqi non la ko ëndé khairul xalqi xam ngeen ni mooy ngën gi mindeef ta waxna len señ Touba téré bu mu la ti jangal mo xam mu lay jangal ci grammaire mo xam mu lay jangal ci lugha mo xam mu lay jangal ci siira mo xam mu lay jangal ci fiqh sa bu tuddé turu bi alayhi salatu wassalam bala muy jall dina ca tek julli ci mom wane ni yanantu bi saa buñ déggee turam danoo war a julli ci moom moo tax comme wax na ni lii ma wax ni képp ku jàng bisimillahi rahmaani rahim mu tolloog fukki araf ak juróom-ñeent yàlla dina la musal ci fukki malaaka ak juróom-ñeent yiy saytu mbiru safara ba doo ca tab bi mu ni nag loolu ma wax wax yi ngën gi mindéef la noonu la ko indee ci xaddiisam looloo tax na comme tudd na baatu ngën gi mindéef bala muy jàll mu julli ci moom moo tax sëriñ Tuubaa wax ni alayhi yàlla na nekk ci moom afdalu salaati ngën gaa teddi xéewali sunu boroom wasalaam ak ngën gaa màggi ay jàmmam maa xaasa feek muy làq zo nasihatin boroomuk bire xayral maraam ngën gi càkku téefam mu ni kon maa ngi ñaan ci yanantu boobu ma tudd yàlla na yàlla def ngën gi xéewal ci moom def tam ngën gi mucc ci moom feek ku yàlla dimbali ci diine mu dégg ko di laabire mu ngi cay amee ngën ki càkku téef rek maa ngi ñaan ñaan googu yàlla nay dal ci yanantu beeg njabootam sallallahu alayhi wa sëriñ tuubaa ni wa yu basmili sabiyu fi maktabin yaktub lahul aliyu wa walidayhi wa liman yuallimu baraatan min naarihi faltax namu Sering touba nee na wa aysuma sa bo boo ni yu basmilu sabiyu yu basmilu dal lay jang basmala asabiyu ndaw li xale bi tollu ci juroom benn at wala ñenti at wala juroomi at wala jurum ñaari at sa bu jàngee baatu basmala ni bismillahir rahmanir rahim dong serigne touba nee na mu jange ko fi maktabin ci école bi mi jange ci daara ji mu nek ñu bindal ko ko mu jàng bisimillahi rahmaani rahim sëñ bi nee na yaktub lahu aliyu yàlla mi aji kawe ji dina ko bindal wa walidayhi bindal ñaari waajuram yi d'accord ci mu jàng daara bañ mën ko koo bindal wali man yuallimu bindaaleel ki nga xam ni mooy sëriñam bi ko jàngal bisimillahi rahmaani rahim baraatan ak goreel ak protection min naari yi ca sawaraam sa dootu fa tàbbi mukk yàlla muccal na ko ci sawara da koy génne complètement ci sawara muni ni fal tax nañ moo fal tax na moo na ngeen mang kon de ngeen seigne touba nee na képp koo xam ni dimbali na la nga jël sa dom mu tollu ci jang ko ci ay bërëb yo xamni dañ koy yak rek nga ko ci daara mu jangi alquranul karim suñ ko bindalee bismillahir rahmanir rahim képp yam ca xale bi tudd ko ni bisimillahi rahmaani rahim serigne neena na dina gorel ñaari waajuram yi d'accord ci mu jangi ci sawara duñ ci tabbi gorel sëriñam biko jangal bindal ko ci àlliwa ji rahim walel xale bi daiman iman tabbi tàbbi sawara kon li warna tax ku am dom nga taxaw ci banu jangal ko dinem jangal ko alquranul karim waye am dom sa yonne ko ci nangu ko jaarale fiñ la jaarale yow dal sa dom bu amé 4 ans 3 ans nga joxé ko ci maternité yi ñu commencé di def ci mom bati tubaab mu nar ci mag du xam dara ci diiné su ëllëgé bu soxla kamilu alquranul karim day wo ñu ko janggulun. ndax jangul woon su ëllëgé xamut dara ci diiné jangaluñ ko luy julleeb neew jangaluñ ko luy tuddu dom jangaluñ ko nuñuy liqame jangaluñ ko nuñuy luñ ko faatiha bu sell bu man koo jàng jàng jàngaluñ ko nu muy jullee jàngaluñ ko ni muy xame xasida dara xamu ko parce que yaa ko lor mu ngi ci condition nga gaaw jox ko nasaraan yi ñu yebbi ko ci moom jox ko seen idéologie yar ko ci loolu ba mu màgg ci loolu danger la Sëriñ Tuubaa nee na ku am doom mu toll ci jàng na xar sa tànk tubay ngir fexe ba mu dugg ci daara su ci duggee bu ko sëriñam bindalee ci àllio di ko rahmanir rahim xale bi jaar ci wax ko yalla jéggal na xale bi dootul tabbi sawara jéggal bayam ak ndayam ñi nga xamni ñoko yilif jéggal sëriñ bi ko bindal ñom ñepp yalla def na décret c'est fini sawara amul ci ñom wal kon lii warna tax ku ci am dom nga taxaw tem ci mu jangi alquranul karim motax touba ni wa haythuma yu basmili sabiyu saa boo xamee ni ndaw li xale bi wax na bisimillahi rahmaani rahim fii maktabin ci école bi mu doon jànge wala daara ji ñu koy bindale yaktub dana ko bindal lëxoo ñeel ko al aliyu yàlla mi aji kawe bindalaale wa waalidayhi ak ñaari waajuram wali man ak ka nga xam ne yu allimu moo ko jàngal lu mu leen di bindal moom yàlla ni bis ni ki tey man sunu man seen boroom signé naa signé naa décrété naa ni xale bi jéggal nañ ko jéggal ñaari waajuram jéggal sëriñ bi ko jàngal baraa atan dañ koy bindal ak deñ ak génn complètement min naarihi ca sawaras boroomam fal tax na moo mu ni kon na góor góorgóorlu ngeen jéem a màng seenu njaboot jëme leen ci daara ngir yéen tamit ngeen tàbb ci jëf ju toll noonu sëriñ Tuubaa nee na wa raakibu daabati aji war ji daaba daaba mooy nga war wëtiir walla nga war daamar oto walla nga war fas wala nga war mbaam loolu lépp ci daaba la bokk wala nga war avion saa boo waree ci daaba rek sëñ Tuubaa dina wa raakibu daabati aji war ji daaba mahma basmalan saa boo xamee ni jàng na bismillaahi rahmaani rahiim bi muy yéeg yaa ngi war ci sa kaw fas nga ni bismillahi rahmani rahim war ci kaw wëtiir wala charrette nga ni bismillahi rahim war ci kaw auto nga ni bismillahi rahim war ci kaw avion fofal naw nga ni bismillahi rahmani rahim war ci kaw train sahar nga ni bismillahi rahmani rahim sëñ Tuubaa ne lan moy xew wa aji war ji daba mahma basmala saa bu fi jàngee basmala bi muy yéeg inda ruku bihi ci jamonoy waram ca kaw daaba ja lëhaa ñeel faatiya ba wa hamdalaa mu daal di yéeg ba toog nag jàng xam hamdala mooy mu ni alhamdulillahi rabbil alamin kon booy war ci oto jamono bi ngay teg sa tànk monte neel bismillahi rahmaani rahim boo duggee ba toog nga ni alhamdulillahi rabbil alamin su de fas ngay war jamono ba ngay yek ngani ne bisimillahi rahim ni alhamdulillahi rabbil alamin mom la seigne Tuubaa wax motax muni kon basmala bamuy jang inda ruku bihi ci jamono bamuy waré wa hamdala ak hamdala bamuy jang jàng ñeel daaba ja war muni taktubu lahu dina ko bindal ñeel ko ku koy bindal malaayiku salami malaakay yàlla yi ñoom la yàlla jox ndigal ni leen dem leen ci sama jaam bële war ci kaw fas wi tudd ma wala mu war ci avion bi tudd ma wala mu dugg ci oto bi tudd ma dem leen ngeen bindal ko lu ngeen koy bindal xasanatan ak rafetal ka adadil aqdaami rafetal bu toll ni li mu tànki fas wa la mu daw wala limi jéegooy avion ba la mu daw ci distance wala limu ruu oto ba la rouler ci tëli bi ci distance dinañ jël lim bu toll noonu fay ko ki wax bisimillahi rahmaani rahim bi mu ciy dugg bi mu ni alhamdulilahi rabbil alamin mbokk yi kon yóbbal a ngoog kuy tukkeeti booy dugg ci oto bu ko tàyyee la wax neel bisimillahi rahmaani rahim boo toogee ci place bi nga am nga door a wax rabbil alamin yàlla dina la musal ba nga wàcc ci jàmm te diir bi oto bi daw lu mu daw ci distance ñu bindal la ko ci tuyaaba yu rafetal kon ngeen bàyyi ko xel loolu yóbbal la ci gaa yi war ci oto ak war ci avion ak fas kuy tukki faaw nga war ci benn saa booy dugg ci biir daaba ji nanga nga wax bismillahi rahmani rahim boo toogee nga ni alhamdulillahi rabbil alamin diir bi muy daw yàlla dina la musal ba la dal te diir bi muy daw yépp yàlla ngi lay bindal tuyaabay rafetal ci lu tolni kem distance bi mi daw lolu yóbbal la bu fekke tam da ngay war ci auto wala ngay war ci avion mag ñi wax nañu ni soy duggu nga ni bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nastain ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina anamta alayhim gayril maxdubi alayhim wala dallin nga ni amin amin amin amin ba muy téeméeri yoon daama daaba daaba jooju nga waroon dinga nga ci wàcc ak jàmm te doo accidenté kon ngeen def ko yóbbal bu dee ci oto nga war def noonu doo ci accidenté soo waree ci avion du daanu soo waree ci fas di nga ci mucc ba keroog ngay wàcc loolu yóbbal la ngeen bàyyi ko xel bu baax a baax lépp di njariñ loo xam ni mag ñi takkoon nañu lool su ko defee mu ngi noonu sëñ Tuubaa nee na asraaruhaa aksaru min an toxsaa nee na asraaruhaa ay secret bismillaahi rahmaani rahim aksaru ëppante naag min an toxsaa ci ñu koy mën a takk kon kenn mënu koo wax nekkul lu ñu mën a wax ci téere ba mu jeex nekkul lu ñu mën a nettali ci làmmiñ ba matal ko nekkul lu ñu mën a wax ci télévision ba ñépp xam ko kon njariñu bismillaahi rahmaani rahim xaadimu rasul nee na lo bari la lo xamni kenn munu ko tak ba jeexal ko muni amal fawaidu ndal dag ma laaj nak njariñ yi njariñu bisimilahi Muni rahim mu fala tustaqsa fala tustaqsa moy mënee fuko lim muni suko tak ay njariñam tamit ku ne lot na ci mana wax ni mu toll muni amma salatuna ndal sunu julli nak ala nabi ci yanantu bi alayhi salatu wassalam julli gi ni def ci mom mo xam xeetu julli boo mën am na ñuy wax allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim am na ñuy wax sala salaatullahi alayhi am na ñuy wax sallallahu ala muhammad am na ñuy wax allahuma salli ala muhammad kama sallayta ala ibrahim wa ala ala ali ibrahim am na ñuy wax yu bari ci salatu yu bari na am na ñuy def salaatul fatihi lépp salatu ala nabi la julli boo mën ci moom rek defal sëñ Tuubaa nak dila wax njariñ yooyu mu ni amma salaatuna ndaal sunu julli ala nabi yi ci yanantu bi muhammadin mi tudd muhammad xayri bani lu ay yi mi nga xam ni mooy ngën gi ku askanoo ci luway luway ci maamu yanantu bi la bokkoon ku ci askanoo mooy sa ngën gi mbindeef moo la gën julli ci moom sëñ Tuubaa nee na fëx ya moom julli googu ajjal lu maa bokk na ci gën a yi nga xam ni tamasakta bihi di nga japp ci mom ba'da ada il fardi ginnaaw jooxeeg farata gi faltan faltan tabi yewul wa serigne touba neen bu fekke julli ci yenantu bi alayhi salaatu wasalaam nga laaj bokku na ci gëna mag yu jambi di def ginaaw bi mu joxe farata ba aga joxe sa farata moy sa julli yu juroom bu mu manki bu suba joté nang ko julli bu tisbar jotee nga julli bu takusan jotee nga julli bu timis jotee nga julli ko bu gee jotee nga julli ko wéru koor bu ñëwé na nga woor fanweeri fan yépp ba mat ndem amo ngant ngant yi xam ngeen ko tukki bu sori may nañ la ko ba nga ñëwaat fay wala febar bo wéré fay bu dé ci jigéen xam ngeen ko lu démé ni ay wasi nak ëmbak ngant yépp xam ngeen ko tollu ci digënté tawat su boobaa may nañ ko ko ba mu ko su ko defee kon weeru koor nga woor ko fanweeri fanam kooku farata la aj màkka soo ko mënee condition mooy nga mën ko soo ko mënee rek war na la soo ko mënul mu wàcc la asaka soo ko mënee moom it ndax day fekk nisaab bi li nga war a génne mat te nga war koo génne amoo ki soxla ren ba déwén nga génne ko asaka li ci des mooy gëm ni yàllaa la sàkk moo la moom moo lay dundal moo lay rey moo lay atte bis ba nga boole ponki ngëm yépp di juróom benn tënku ci biir gëm mboolem yenent yu mu yónni gëm téere yi alxuraan di ndayi téere yi gëm bis pénc xam ni dañuy dekk yàlla dañu atte gëm malaaka yi ndaw yi yàlla lañu gëm ndogal bu naqareeg bu neex ginnaaw bi nga gëmee yii yépp ah, def nga sa julli juróom génne asaka ci niñ la ko sante ndeem am nga ko nisaab bi mag ah, aj màkka soo ko mënee woor weeru koor matale ko sëkk kon farata yi mooy yi nga xam ne juróomi ponk islaam yi soo ko matalee muy say farata ginnaaw farata yi sëñ Bàmba nee na bokk na ci gën a màgg mooy di julli ci yanant bi alayhi salaatu wasalaam ndax bu leen fàtte ni yàlla digaloon na ko jullit yi ñu koy def te buur bu toll ne yàlla lu mu diglee ba pare bi mu ko diglee mu wax ni maa ngi koy def comme yéen kon na ngeen ko def inna allaha wa malaikatuhu yusalluuna ala nabii yaa ayuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima yàlla noon na yàlla ak ay malaakaam di armeem di kuréelam nu ngi julli ci yenant bi alayhi salaatu wasalaam kon yéen way ñi julli leen ci Mustafa alayhi salaatu wasalaam te ngeen sërmal ci moom kon yàlla def na ndigal loo xam ni mu ngi koy defandook ñun mooy julli ci yenant bi motax julli ci yenant bi kon ginnaw farata yi bokko na ci li gën mag li jam bi ngëpp ci waxi serigne Tuuba motax muni amma salatuna su fekke nak may laaj sunug julli ala nabi ci yenant bi alayhi salatu wasalaam muhammadin mi muhammad Khairi bani lu ay di ngeen gi doomu ku askano ci lu way fëx ya julli ci bi ajjaluma bokku ne ci le gëna a la nga xamni tamasakta jàpp nga bihi ci mom ba'da ada il fardi ginaaw sa jooxey farata gi faltanta bi yewul yawmi may laj muni khat xat nassa yahalna na yaxal na sunu serign a sànnoosi yu ka di koju sànnoosi moy sunu serign ba tuddu ba sant sànnoosi as sharif kay sëtu yenant bi radiya yàlla na gërëm an uwalif moom dëhëra giiru dund rabbunaa sunu boroom allatiif kay aji ñeewantal mu ni sunu sëriñ ba nga xam ni day mooy imaam Sànnoosi di sunu sëriñ di sëtu yenant bi alayhi salaatu wasalaam moom day yaxal na mooy bind na ci téere wax lii ma wax ni daal dëgg-dëgg julli ci yenant bi doy na sëkk loolu lay bëgg a nettali comme tout na nag sànnoos ta te nee na sunu sëriñ la ndax sutu yanan bi alayhi salatu wasalaam tudd na tamit yanan bi alayhi salatu wasalaam xam ngeen ni serign toba teggenam sa bu tuddee yanan bi day julli ci mom sa bu tuddee nitu yalla buy walluy da koy ñaanal ngeerum yalla motax muni kon qad nasa yahalna, na seyxu naa sunu sëriñ a sànnoosi yu ka tudd sànnoosi sharif ka nga xamni ni yanan yenant la mu ne raddi ya yàlla na gërëm anhu ci moom rabb naa sunu boroom allatif yàlla mi aji ñeewantal ak dëhëra giiru dund yàlla na gërëm sànnoosi ñu ni sëñ Tuubaa lu ma wax mu ni wax na ni bi an naxaa ni julli ci yenantu bi tuux nii doy na sëkk anil morab bii walif ngay wut sëriñ buy yare kon ndekki sëriñ bi yare rôlam mooy yar taalibe bi def ci moom jikko yi rafet defar xolam tàggat ko ba mu am yàlla Sering Tuubaa ba imam sanusi san nusi na ci bindi bind ca ni julli ci yanant bi dem na ba mana a taxaw taxawaayu sëriñ buy yare nga xam ni soo ak julli ci bi man nga ba nya am sering bu layar. yar sëriñ bu la yar rôle defrek le def rek la julli ci bi di def ci yow niveau da ngay dem ba defar sa jikko takko ak julli ci bi ba ag fa gaa ta jar nga am sering bu layar. yar kon sering bu deme ba tabje sax tabje mooy yitte yi muy jaamoo yàlla yitte yi muy liggéeyale yàlla mbir jaam ñi bari ci moom sañ na taalibe ñëw ci moom temps bi mu daan am ci moom ngir war koo yar mu jox ko salaatu ala nabi di ko sax ci rek deel julli ci yanantu bi su ko defee muy def rôle ba nga xam ni sëriñ baa ngi koy def ci moom kon man ngaa jàpp ci julli ci yanantu bi rôle bi sëriñ bi waroon a def ci yow ci yar la julli ci yanantu bi remplacer ko ci yow yar la ba nga nek nit ko normal xam ngeen ni julli ci yanantu bi day tax nga am leer julli ci yanantu bi day tax nga genn ci sa xol ki ñaan iñaan julli ci yanantu bi day tax nga tabe julli ci yanantu bi day tax sa jikko rafet julli ci yanantu bi day tax nga sawar ci jaamu yalla julli ci yanantu bi day tax nga top sunnam julli ci yanantu bi day tax nga bëgg ko ta yoy yep bu dajé ci yow serigne man na la baña tarbiyé tarbiya nga ag fi gaay ag motax serigne touba ni kon Imam Sanusi nee bi annahaa ni naka julli ci yanantu bi doyna anil murabbi walif ge wut sëriñ bala yar li bihi ngir ñoddi gi mi ñoddi mom julli ci yanantu bi al fata chamsi moy jaam bi nit ki li qurbil hubbi jeme ko ci jige yalla borom kon deke boy julli ci yanantu bi julli ci yanantu mo lay ba yobul nga jige yalla kon mo waral man nga bañaté am sëriñ bi lay yar tayem ci julli ci yenant bi rek bu la ko joxee ndigal man nga sax ba xey ag ci yalla rek ta du jar ngay am kenn ko lay orienter muni wahya ta mom julli ci bi ay dan batay tas tasturu day sutural, al uyuba ayib ya sik ya kon ki julli ci yenant bi alayhi salaatu don ta sax dafa am ay sik ay ayib ndax nit ku nek am ngay sik tuba bi sax ne nul n'est parfait kenn normalul complètement nit dañ ko sak ci insaniya faaw muy fatte faaw muy joom faaw muy togn faaw muy def ay erreur parce que jam la kon ku ne am nga sik sik yoy nga am nak bu fekkee da nga takko di julli ci yanant bi yalla da lay suturaal ci daraja yanant bi ba sey sik du feñ sey sik du feñ ndax am ño xamni seen sik ci lenen la waaye mën ngaa dund ak ñoom ba ñu dee doo leen ko xamal yàlla sàngaleen leen sutura sutura soosu ñu leen di sàng nag julli ci yenant bi dara mënu ko ci bokk na ci liy sàng jaam bi sutura ba ay ayibam ay sikkam du feeñ ci bëti jaam yi wa yaxfirullaaha wa yaxfirullaahu biha zunuba az zunuba nee na wa yaxfirullaahu te yàlla dina jéggale biha sukkandiku ci julli ci yenant bi az zunuba bàkkaar ya kon nit dina bari bakar lol waye mu sax ci di julli ci yanantu bi rek guddi ko jot mu am yitte def ci junni wala ñenti junni wala fukki junni ak ñaar wala ñetti téméré fukk ak ñett wala 903 mo xam lim bu ci mën lu bari baxna julli ci yanantu bi nit dina bari bakar, taxoo di julli ci yanantu bi alayhi salatu wasalaam guddik bëccëg ba mujjé yalla contane ci mom jéggal ko mbolém bakar ya mu sëñ Tuubaa na wa yaxfirullaahu te yàlla dina jéggal bihaa sukkandikoo ci julli ci yanantu bi azunoo ba bàkkaar ya mboole seen dina ko jéggal jaamam ci julli ci yanantu bi xam ngeen ni ki ñuy wax rabiatul adawi rabiatul hadawi xam ngeen ko bu baax ci nitu yàlla yu mag yi la woon jigéen la woon ku amoon yitte njaal beenam manoon nañ koo sikk waaye mujjantalam bokk na ci jigéen ñi islaam gën a respecté ngir yitteem ci yàlla ku ragaloon yàlla la ku maandu mu jigi ittee ko yóbbu foofu yépp waaye wax nañ ni baayam bi ko jur dafa taqoo woon di julli ci yanantu bi guddi gu jot mu jox junniy salaatu ala nabi Mustafa alayhi salaatu wasalaam guddi gu jot mu jox ko junniy julli ci yanantu bi dina ko julli ci yanantu bi yàlla dogal mu amoon xaalis lool mu jigi ñàkk xaalisam baayu raabi alaay wax bi mu amee première doomam noonu mu ni woon damaa ne bu ma amatee doom yàlla ma yàlla jox teraanga ju ma ko ngénte ngénte lu rëy première doomam bi mu koy am fekk ko ci pauvreté mu ni ko ngénte ni mu bëgg mu ni kon naa xaar ci sama saani sama ñaareel bi doom amu ko ca mu naa xaar kon ci sama saali sama ñetteel bi doom amu ko ca bi muy am rabia taxul mu am xaalis amul sax gàtt bu mu ko rayal benn nitu yàlla bu nekk ci dëkk boo xam ni mu ngi mel ni kii nekk Iraq kii nekk Iran ngi melni ki nek senegal ke le nek Cameroun muy julli ci yanantu bi jot junni ben way mo ñew jox ko gatt bet ko guddii bi ne suba la da rabia moko jox gatt ne ko mustafa moma ma ci yow nee la ko jox mu ne ko numu mustafa xame mu ne nee junni salatu ala nabi ngay julli ci mom yek nako man borom wërsëg la moma ma yónni ma dekk sangam ma ñew ci sa dekk jox si la gàtt bii nga tudde ko sa dom joju ndax yanantu bi nanguna li ngoy koy mbokk yi gis ngeen julli ci yanant bi nettali nañ ci téere bu ñuy wax nus ëttul majaalisi téere bu am solo la boo xam ne bu ne war na ko am di ko xool moog duratu nasihin mu ngi nettali nee na am na ci nitu yàlla yi koo xam ni nettali na ca lu am solo lu doy waar lu ko mësa a arrivé dafa aji woon màkka ànd ak baayam dafa aji woon màkka ànd ak baayam ba nu ñëwee màkkatal mukarrama fi ñuy xaje xam ngeen aj ak tawaaf ni mu baree coono rek buuxante bi mu jékki-jékki rek baay bi dee daanu fa dee bi baay bi deewee nag amul kenn ku ko jàppale foofu ci fitna geeg màkka nee na mu daal di wat baay bi ñëw ak moom ba ci bërëb mun naa ko teg fii mu noppalu ba fajar ba ma gis ñu ma ko jàppale nu yóbbu ko ci morgue bii màkka ndax dañuy julleendoo néew yi rek mu tëral ko foofa nee na di xool ku ko jàppale naar yaa ngi koy romb kenn talu ko ku romb rekk yaa ngi nekk ci sa yitte nee na mu tëral néew bi foofu di néewu baayam mu ni naa sàng sama baay sutura comme deewee na fii mu daal di jël sër muur ko baay bi ni gam-gam tuuti muuriwaat baay baay bi di ko xool fekk bopp baay bi nekk bopp mbaam saxi nopp nekk bopp mbaam mu ni wal iyaasu billaahi lii de rus naa koo wane moom sama baay ni soppi ko na nekk léegi bopp mbaam ki kay duma ko wan kenn muma koy jàppale nako sang sutura mur ko ni rek dal di jelat euh, darab bi dal koy muré bop bay bi jaaxle lol nak ci lol dal bayam coono japp ko muni gam-gam melni luy nelaw jëm fek ko fofu ci wetu kaaba gi niko pekk pekk pekk mu yewu muni ko luy sa muni ko man kat dama and ak sama bay ñew ba Waron waron ko euh, ànd ak mom ñu àggale sunu aj makka mu daanu fi dee dee na nag ma bëggoon ku ma ko jàppale waaye dama koo muri mu mel ni dafa soppeeku mu ni ko baax na fu ñu ko def fii mu ni waaw jëmm jaa ngi rafet lool ami bët njool am taxawaay leer naññi jëmm ji jël loxoom teg ko ci bopp baayam mu dellu nekk na mu nekkoon nekkaat bopp bu leer ànd ak leer mu ni ko xam nga lu def lii sa baay mu ni ko déedéet mu ni ko sa baay da daan dunde riba di nax nit ñi lekk seen àq di ko dunde ba dee ñëw ba ci bërëb bii lii ko xam nga lutax yalla dimbali ko muni dedet, muni ko man mi ngay waxal may sayyiduna muhammad ma tax ñepp di jaamu ma tax ñépp daw ma tax ku ne di wut ngeureum man mi tax man mi may jaamu yalla bi yalla gëna gëreum ci jaamu mi ma ci gën may gën gi mindeef man mi di sayyiduna muhammad sa bay bi limi saggan saggan ci ñaawteef daana def guddi gu jot bala mu teud mu jang téméri salatu ala nabi julli ko ci man fasante ko man kóllëre bi mu jaaxlee tay nak faaw ma dimbaliku motax ma delloo ko bopam gaawal ma jàppale nga denc sa bay may Muhammad moko ko bamu rob ko muni melas dem nitu yalla boobu mo nettali lolu ci téere boobu nus majalisi pour wane julli ci yanantu bi importance bi mu am kep ku ko saxo diko def sa bo jaaxlee mustafa taxaw sawet dimbali la kon Serigne Touba nee na ngi di fatali julli ci yanantu bi ni imam Sanusi waxna ni kon doyna seuk ci sering bu yare mom julli ci yanantu bi tayit dana di ki julli ci mom di gëna gën yalla boromam ndax yalla mustafa la bëgg lolu moy dëgg kon ku golu ci yitte jox ko mustafa yalla bëggaale la ci bir bëgg gi mu ko bëgg ndax bu démé bay wax ni su fekke bëgg ngeen ma sopp leen top leen yanantu bi wa top leen yanantu bi su ngeen ko topé rek ma sopp leen kon yalla bëgg na ko top yanantu bi alayhi salatu wassalam motax kon sëriñ Tuubaa nee na wax yéete moom julli ci yanant bi ay dan ba tey tasturul uyuba day suturaal say ayib say sikk wa te yàlla dina jéggal ba bàkkaar yépp bihaa sukkandiku ci julli ci yanant bi wa annahaa te moom julli ci yanant bi kal xi kal xi mel na ni gore goreel mooy mbaa yàlla ku ñu mbaa yàlla toppatuñu la dara loo mën tey def dugg aljana loolu dina ko maye moom julli ci yonent bi dina maye lool moo tax mu ni kal itqi mel na ni ak goreel fii ajri ci yool bi ci yàllay fay kama taq di nit ki muy fajetam xawaa ijël lësi yi ki nga xam ni intama askanoona lëxaa ci julli ci yenant bi kon képp ko sax ci julli ci yenant bi yàlla faj say xaajo loolu ba tey sëñ Tuubaa day waral fajuk aajo wa toosilul abda te dafay àggale jaam bi koy def ilal jinaani jëm ca aljana ya kon jaam bi taqoo di julli ci yanantu bi faawu mu dem aljana ngir yanantu bi du seetaan mukk ci taqoo ak di julli ci turam bi ñu koy lakk ëllëg loolu mooy li wóor ndax yàlla noonu na ko ca sóotu duhaa walayli eh, walayli isaa sajja wa duhaa walayli isa sajja maa waddaaka ko wa maa wala laaxiratu khairun laka al ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda ah, yalla dina la may ba ngay sant bis pénc fekk waxoo doy na man yalla duma bayyi dina la may ba nga doyal yanantu bi nak du setan bis pénc ku dan julli ci mom ñukoy eh, lap diko di sawara waaw téere yi sax wax na ni sawara dina dina def ay ferñeent di tepp di taxu jëm ci ci jam ñi waye yanantu be taxaw naan ko ñi di sama xet duñu pour yaw na nga ah buñ ñu ci innaha tarmi bi shararin kal xasri ka annahu jimalatun sufrun ja suratul mursalat di jàngale nga xamni day sanni ay fer ñent bëgg ñu ci jamm mustafa yi taxaw naan ko sama gaay yi duñu pour yaw kon ku bëgg bok ci gaay yi mustafa yooya na nga am farlu ba loo tabje tabje lo yakamti yakamti del julli ci yanantu bi alayhi salaatu wasalaam mo tax serigne ni kon wa tusilul abda julli ci yanantu bi day àggale jaam bi koy def ilal jinaani ci aljana ya xadan su ëllëgee yowmal qiyaam wa tadfau anin niiraani te day fegal jaam bi koy def ay sawara da lay ci sawara ba du la mën a lakk ëllëg kon julli ci yanantu bi gën a wóor lépp ndax day dox sa digganteeg safara moo tax ibnu muhayib ibnu muhaybu boo leen demee ca téeréem ba mu woy yanantu bi mu ngay wax naan uhidu li ëxwaalil xiyaa xiyaamati hubbaho waaw nee na tiit yee am bis ci man préparel naa ko du préparel naa li ëhwaalil qiyamati ci titi bis penci hubbahu sop rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallam mom la wajale bis penci baragaluma sawara kon mu ngi non serigne touba neena na wa annaha te mom julli ci yanantu bi tunawiru zawahira zawahira fay leral sunuy biti day waral sa xar kanam am leer day waral nga mana sañse ci la bok day waral nga set day waral nga silwiise day waral ku la gis rek sopp la xam ne yow mii leer a ngi ci yow loolu nag kon day leeral sa biti gépp ku la xool xemmem la ku la xool bëgg la nit a ngi julli ci yanantu bi am bayre ñu naan waaw kii moom bayreem bi fu mu ko jële fekk julli ci yanantu bi rek da sax guddeeg bëccëg da ngay am bayre ku la gis sopp la nit a ngi julli ci yanantu bi soxna yi buñ ko gisee bëgg ko ku yor yéere yéene ko ko mu sañse ku am xaalis jox ko hëddiya ku am parfum jox ko nu mu romb ci mbedd mi ñëpp sopp ko ku ne bëgg ko ku ne di ko ñaanal fekk julli ci yanant bi moo ko may boobu bayre moo tax kon sëriñ Tuubaa ni dafay leeral sa biti yépp day mujj sa biti gépp leer lay àndal yow mi julli ci yanant bi mu ni ala tifaaqi nag ci dëppoog boroom xam yi loolu ñu am xam-xam ñépp maase nañu ci d'accord ni julli ci yenant bi day tax nga amee leeru biti sa lépp feeñ ci biti ndax biti kese mu ni déedéet du yem ci biti kese ni ngay leere ci biti ni ngay leere ci biir motax mu ala tifaqil qawmi ci deppok borom xam-xam yi ala tifaqil qawmi ci deppok borom xam-xam yi wa saraira ak cam ci bir ba ak ci bir ba sey birit sey secret lepp leer lay don don ta gaay ak lay saboter don ta gaay ak lay ayibal don ta gaay ak lay contrer yalla mom sa bir bi lay rafetal ngir julli ngay julli ci yanantu bi alayhi salaatu wasalaam serigne touba ni wa annaha ta mom julli ci yanantu bi tooji bu dafay waral yowmal xaqi ca bisu dëgg ba safaatal muxtaar yi ràmm yanant bi alayhi salaatu wasalaam day waral bu ëllëgee yanant bi ràmmul la boppam xayril xalqi moom mii ngën gi mbindéef kon daal yàlla na nu yàlla xiir ci julli ci yanant bi ndax bu ëllëgee yowmal qiyaam ku daan julli ci moom Moustapha jàpp sa loxo ràmmul la boppam nga tàbbi aljana mu ni sàllaa yàlla na dolli xéewal wa sàllama te mu dolli mus mucc àll yi ci moom arab bu borom bi wal aali te mu dolli ci waa këram xéewal wa sax bi ak ay àndandoom wa man yuhibbu ak képp ku sopp yanant bi mu ni indal lësi la nga xam ni xawat làq na ko moom julli ci yanant bi minal manaafi ci ay njariñ hunaa fii ci àdduna waxan naa ak fële ca yowmal qiyaam faata raw na jam al jaami dajale ki doon dajale kon ki doon jéem a dajale sax secret yi ci nekk yépp ak mbaax yéeg xéewal yéeg tawfiix yi ci nekk bi mu dajalee ba pare sëriñ Touba nee na ko lépp raw na la indiwoo ci un tiers ndax mënoo koo xam njariñ gi ci nekk kon mbokk yi nañ sax ci di julli ci yanant bi su ko defee nu ubbi nu ligne téléphonique bi ku bëgg a tàbbi ci émission bi man cee woote nu officiel nu ko euh, mañaan bu dee yaa ngi dégg ngeen ubbil nu ligne téléphonique bi su ko defee mbokk yi nga xam ne ñu ngi teewlu émission Fawzeyni di ànd ak seen mbokk Abdoulaye Diop Bichri mën a tàbbi ci waxtaan wi kuy wootee ci réew mi yaa ngi duggee ci émission bi 88 vingt 628 08 18 kuy woote bitim réew 00 221 33 841 23 12 su ko defee mu ngi noonu ci écran bi ngeen di seen ku bëgg tàbbi ci émission bi rek mën ngaa woote tàbbi ci biir émission bi bu baax ànd ak ñun ci waxtaan wi ak seen mbokk Abdoulaye Diop Bichri nu ngi sant bu baax di nuyu euh, sunu jigéenu bopp soxna Bintu sàll Adja Bintu sàll ak sunu wéejur Euh, soxna aja jeng yalna na fi yag te wér ca parcel nu ngi siar bu baax bàyyi mor mbub di sunu soppe fofu ci di siaré wa Canaba yep ak sama mbokk ya fa nekk bisimilah salaamaaleykum alaykum salaam wa rahmatullah wa kay sëñ bi bismillah no tudd ak fooy wote Abdou gay la tudd di la woy fi ci beyti Abdou gay di wote ci beyti région de Louga ci beyti ñu ngi siar bu baax gay ñu ngi siyaar bu baax te di leen sant di leen ñaanal. jërëjëf Guèye. li na yàlla defal tawféex. amiin Guèye amiin Guèye. kon ni ko. amiin Guèye. yéen ji nga am bëgg ñu ñëpp jub te am am ndam ci liggéeyal Seydina Mohamed yàlla na la ko ci yàlla defal. amiin amiin Guèye amiin Guèye. ak ak képp ku mel ne yow tey liggéeyal Sëñ Tuubaa. amiin Guèye amiin koo déglu rek kontaan ci numéro bi julli ci yonent bi am solo lool. wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan. am na solo lool ni nga ko waxee kon jullit yëpp war nañoo góorgóorlu ci ni nga ko waxee. wallaahi wallaahi gay yow jaam ñu jub rek nga bëgg. wallaahi ndeysaan loo rey suñu yitte. yal nañu yàlla dafa dégg ak topp. jërëjëf gay li ngay liggéey yal na ci yàlla tasal ay ngërëmal sëñ Tuubaa. amiin nu bokk barke sëñ Bamba amiin. ñu ngi lay sant bu baax di la ñaanal. jërëjëf ñu ngi leen nëndu ko saalika ñu ngi leen di sant ñu nit bu baax a baax gay ñaanal sëñ Mamadou Mbacke yu fay yal na ko yàlla defal tawfeex moom ko jara ñaanal la wallaay gay yàlla yàlla yàlla defal ko ak mu yàgg fi lool te ak am ndam ci muy liggéeyal sëñ Touba. amin gay, amin gay. amiin Guèye. ñu ngi sant waa Touba TV yëpp. jërëjëf jërëjëf ñu ngi lay sant Abdou di wote ca bayti ñu koy siyaar bu baax moom eh, di rafetlu kàddu yu am solo yi def ak ñaan ko yàlla nangu. di xaarandi mbokk yi ci ligne bi rek numéro téléphone baa ngoog affiché képp ku bëgg a woote ci réew mi mën ngaa duggee ci 88 628 0818, 18 ñuy bitim réew 00 221 33 841 23 12 ànd ak seen mbokk Abdoulaye Diop Bichri nu ngi siyaar bu baax a baax euh, mbokk yi nga xam ni dunu tardé émission bi ko mel ni suñu wéyjur soxna Ndey Mati Jéey ca Thiès Medina Fall sunu jigéenu bopp soxna na koy xoll nu ngi koy siyaare soxna Aram Diop foofu ci Thiès soxna Abibatu Gueye nu ngi nuyu bu baax a baax sunu xaritu bopp sëñ Moustapha Ndooy bu Setikoo di ko waat sunu mbokk mi nga xam moo génn àdduna di sunu rakk di rakkam di soxna Nogay euh, Ndooy di ñaan yàlla xaare ko aljana di ñaanal suñu wéejur nag ajaratu lii ka Ndooy mu yàgg fi te wér euh, di xaar mbokk yi ci 88 628 08 18 Serigne Mbay Wañ lawbe sëriñ Touba nu ngi koy siyaar bu baax a baax ci émission bi nu ngi xaaral mbokk yi salaamaaleykum waa sëñ bi da ngay wàññi sa télé te yokk sa kàddu ñu dégg la bu baax. Euh, daa mel ni kooku rëcc na kooku daa mel ni rëcc na ñu ngi xaar mbokk yi ci ligne bi ku dugg rek nga wàññi sa son tele su ko defee mbokk yi mën a teewlu bu baax say kàddu nu ngi siyaare bu baax suñu Fallou Guèye suñu xaritu bopp fële ca parcelle unité 16 euh, di ko bége bu baax a baax a baax ci seen émission Fawzeyni salaamaaleykum. salaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw sëñ bi dangay wàññi sa son wu salaamaaleykum. waa da ngay wàññi sa wàññil sa télé ñu dégg la. ah waa sëriñ Birahim Ñing. Senelec ñu ngi lay ziar baax ñi ngi ngi lay ziar baax jërëjëf ñi ngi jërëjëf ñi ngi yàlla ñu ko amin ñi amin ñi ñun tam bég nañu loolu ñi ngi. amiin ñi ngi amiin ñi ngi. waaw te de di ñaan nag ngay bëgg sëñ a bëgg rek. amiin ñi ngi amiin amiin. gën a bëgg sëñ Tuubaa amiin amiin. ñu ngi lay sant bu baax a baax. kontaan nañ ci waxtaan bi. vraiment la prestation est extraordinaire. jërëjëf jërëjëf moomu doon woote di ku baax baax ku bëgg xam-xam kuy dox ci sëriñ Touba yàlla na yàlla dolli ko sutura dolli ko xéewal Birahim ñi ngi Senelec ñu ngi koy siyaar bu baax di ko nuyu di siyaare sëñ Abdoulaye Diouf Kéemaan fii ci Castor di siyaare sama magu bopp soxna Faama Jaw di siyaare sama njaboot gépp di siyaare waa Géejawaay waa Caaroy waa Pikin waa Yëmbal euh, bàyyiwunu kenn salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah waaw kay ku baax sëñ Abdoulaye Diouf di sëñ Abdoul Xaadir Fall la ma jox baatam waaw moom la kay ñu ziar bu baax. waaw maa ngi lay ziar bu baax Fall sëñ Abdul Xaadir naka wakaam. ñu ngi bu baax na solo loolu wax dëgg yàlla. ci salaatu ala nabi ak bismillahi rahmaani rahiim wax baax a baax a baax. alhamdulilah ñu bokk lépp Fall. ni ma koy waxee daal sax dund daal am na njëriñ lool ah, lool wax xam dëgg yàlla. ndeysaan jërëjëf Fall. jërëjëf kontaan naa lool sëñ Abdou Khader Fall. taalibe sëriñ ma numbe xabbaan maa ngi lay siyaar bu baax Fall di la bëggee yow mënuma laa fay kuréelu soppee sëñ Abdoulaye Diop Bichri yaa ko ŋànk lépp yaa ko téye téye ko téye bu rafet di mobiliser ñépp wàcce kaamil lépp yaa ca nekk ah, bu ma fi nekkul sax du ci feeñ yàlla yàlla fay la yàggal sa taxawaay dooli la wér dooli la taw féex defal la lépp li nga bëgg ci sañ Touba jërëjëf Fall. amiin amiin Diop amiin waay. kontaan naa lool jërëjëf. ma sëñ Saliou ak ñoom sëñ Ismaïla ak Cheikh Badara ak ñëpp. ngi sant sëñ Abdoul Khadir Fall doon wootee foofu ci Touba Wokam di siyaare waa Wokam yépp sunu soppe ya fa nekk. di leen bëgge bu baax a baax di ziare waa Thiès di ziare waa Kaolack. salaamaaleykum. waaw. salaamaaleykum. daa mel ni kooku dafa rëcc ñu ngi xaarani mbokk yi ci ligne bi rek mu ngi noonu ci télé bi ñu affiché leen ko ku bëgg tàbbi noonu ngay duggee di ziare waa Toubaal Mahrousa bàyyiwuñu kenn. salaamaaleykum waaleykum salaam. jërëjëf waaw sëñ bi ñu ngi delloo ziar noo tudd ak fooy wootee. maa ngi koy def sa da ngay nah, wàññi sa télé pour ñu dégg sa baat. maa ngi wootee Fadia Mama ah, Mama di wootee Cité Fadia. waaw waaw. xanaa sëtu Maxaali Baba Diakhoumpa nga. waaw Mor Maane Diakhoumpa ci Tëngéej ci Refes. waaw ñooñu ñooy naari darmanko yi doon wax nga dëgg naari leen jërëjëf. ñu ngi ziar Serigne Samba doomu Serigne Mamour Samba bu ndeysaan wax nga dëgg. Serigne Sam mooy Baye Fall Samba Samba bu baax ci jërëjëf jërëjëf Diakhoumpa. la ñaanal nga ñaanal Serigne Sam ak mu bu baax a baax. amiin waay amiin ku mat a ñaanal la amiin ku mat a ñaanal la amiin. yàlla yeggale ak mboolem amin mu lay ñaanal yow sëriñ a na la yàlla defal jàmm amin ñu bokk lépp amin barke sëñ Touba amin ñu bokk lépp. amin ñu bokk lépp. amin ñu bokk lépp. jërëjëf ngi sant bu baax sëñ Mama Jaxum ba foofu Cité Fadia. di ziyaare sunu soppee bu ñuy wax sëñ Asfaali Ndaw di sunu soppee lool nekk foofu ci Géejawaay di borom xam-xam di nit ku baax nu ngi koy siyaar bu baax di ko jox wàcc waayam ci biir émission Fawzeyni di xaarani mbokk yi ci vingt 88 628 08 18 kuy wootee ci réew mi kuy wootee bitim réew mën ngaa tàbbi tam ci émission bi ci 00 221 33 841 23 12 ak seen émission Fawzeyni sëñ Abdoulaye Diop bis bi salaamaaleykum. waaleykum salaam ku baax na ngeen def. waa sëñ bi ñu ngi delloo siyaar bu baax. ñu ñu ngi delloo yàlla sëñ bi boole nangul. allahumma amiin ñun nag dañuy leb tur bi ay mbokk taalibe lañ. waaw. ñu ngi déglu waxtaan bi di ko rafetlu. jërëjëf. salaatu ala nabi yi ngay wax. waaw. daf ci am loo xamante ni dañ koy dolli suñu mbokk taalibe yi. waaw. Euh, xeex ak sab noonu. waaw. salaat ala nabi moo ci gën a gaaw. moo ci gën a gaaw xeex ak sab noonu. moo ci gën a gaaw. Mm-hmm. man de am na bu ma saxoo woon. waaw. di ko def. waaw. ba bis ma tëdd. waaw am lu ma feeñu. waaw. ne ma pëkk pëkk ba ma siggi waaw. mu ne ma lii ngay def mooy gën gi jaamu yàlla. mooy jëmmi jaamu yàlla waaw. mooy gën gi jaamu yàlla. mooy gën gi jaamu yàlla waaw. mooy gën gi jaamu yàlla. waaw. loolu moom kenn wax ma ko man ni maa ko dundal sama bopp. waaw wér na lool. est-ce que lu baax émission bi. jërëjëf. te di sant di dooleel mbokk taalibe yi. jërëjëf di rafet lu baax liggéey bi. jërëjëf. nañ ci dooleel góorgóorlu te xam ne jaamu yàlla gënu ko. jërë dara gënu ko moom kay moom rek la yàlla. dara gën baax baax incha allah jërëjëf. jërëjëf jërëjëf ko baax nu ngi lay ziyaare bu baax a baax ku baax kooku doon woote taleb tur wi wax na dëgg nee na liggéey na ci loo xam ni dem nañ ba xamal ko ni ko mooy ngën gi jàmm yàlla tayit moo gën a gaaw ci xeex ak sab noonu waaw waaw ñun moom dañoo fare foo xam ne noonu yépp jéggal nañ leen ñun duñu xeex waaye daal xam naa ne salaatu ala nabi moom dara gënu koo rëy ci mboolem ibadaat yi waaw nu ngi xaarani mbokk yi ci 88 628 08 18 kuy wootee ci réew mi kuy wootee bitim réew 00 221 33 841 23 12 sal waaleykum salaam. waaw Abdoulaye Diop Bichri. waaw ku baax ñu ngi ziar tur bi ak. fooy wootee jërëjëf Touba. jërëjëfati sëñ Touba say sëñ Mbaye Wañ. jërëjëf sëriñ Touba. jërëjëf sëriñ Touba. jërëjëfati sëriñ sëriñ Touba suñu sëriñ. jërëjëf sëriñ Touba wallaay moom rek am njëriñ. Touba suñu njëriñ. jërëjëf. lawbe Serigne Touba la Mbaye wañ Ndiaye. wallaay sëñ sëñ Mbaye wañ lawbe Cheikhul Khadim. waaw Mbaye Ndiaye Mbaye Mbaye Abdoulaye Diop di biir kontaan nañ ci yow. waaw ñoo gën a kontaan. ñu ngi lay siyaar ñu ngi lay liggéey ñu ngi lay matal bu wér jërëjëf wañ. ñu ngi lay ñaanal lan la la Serigne Touba saxoo. amiin amiin wañ ñu bokk lépp. ah Mbaye Abdoulaye Diop dëgg dëgg yaa ngi jàngal. jërëjëf wañ. fi ñu toog daal yaa ngi jox xam-xam boo xam ne. jërëjëf Serigne Touba rek lañ lay lañ lay fay. ndeysaan jërëjëf wañ. te ñoo ko xool ku koy eh wañ. ñu day wañ amiin wañ mu wañ. waaw wañ amiin wañ. mu kontaan dañoo kontaan bëgg nañ lool ci yow gis nañ sa taxawaay. dañoo yaay de ak man. moom moom rek dong laa wóolu. sëñ Mbay Jaxate nee na ko. waaw. alhamdulillahi doon naa murit bu dëggal luy dal ku ànd ak Sëriñ Tuubaa ëllëg na ma dal. képp ku gis ki ma gis ba noppi seeti keneen demal ma dem ba ma fii fii rekk a dal sama xel ak dund yaama ci doy suul dëddu yaama ci doy bisu wàññante ba tuubaa rekk a dal sama xel <laughs> waaw waaw foofa la ñu nekk baa laa jóg wallaay ndeysaan sëriñ waaw moo leen moom de yéen da ngeen di jàmbaar ci yoon wi ñun wallaay bu yàggu rek la sa mbokk yu bari ñëw fële ca sëñ Amsatu mu sëñ son yi bu ca tuubaa di ko jébbal seen addiya ak seen cofeel keroog man la woon ni ma santal ma leen lu looy wax waxal ma ko ak ñoom xoolal loolu wallaay ndeysaan. lañ judd te jërëjëf jërëjëf wañ. parce ñoo gën a kontaan jërëjëf wañ. jërëjëf ñu ngi ziyaare sëñ Mbay Wañ euh, law bépp sëñ Touba foofa ca Gànjaay di ziyaare soxna Ami Kolle Diop soxna Ami Diop fële ca cité Bambilor euh, ñu ngi koy ziyaar bu baax moom it di suñu soppee Euh, di ziyaare soxna Penda Ba di ziyaare soppe yi nga xam ne ñu ci Bambilor yépp ak mboolem daayira ba di ziyaare sëriñ Xaadim Mbaw euh, mu sëriñ Touba Xaadim Rasoul ca pikin nu ngi koy bëggee bu baax a baax ci seen émission Fawzeyni di nuyu waa Cité Nations Unies ñëpp ku mel ni sëñ Xaadim Thiam sañ Seex caam nu ngi siyaare waa Parcelles bàyyi ñu kenn 1 ba 26 salaamaaleykum. allo allo salaamaaleykum. allo maaleykum sëñ bi. Cheikh Ablaye na nga def. ñu ngi sant rek bi ak fooy wootee. Diop man la sëñ Modou Diagne Gandigal. ah sama soppe maa ngi lay siyaar bu baax Diagne. delloo na ziar naka waa Gandigal ñu ngi ci jàmm. ñëpp ngi ci jàmm. ñu lay ñu lay bëggee bu baax Diagne. jërëjëf Diop lay bu sant bu baax di di ñaan fan wi gudd. amin amin Diagne amin Diagne. xam bi gën a yokku ndax yow day saarfakàlla la ma la ko waxoon ca màkka ja rek laa la koy waxe ba léegi wallaay ca màkkatal mu karama yow sama seexu màkka nga ndeysaan wallaay wallaay wallaay yow mënoo ci yoon wi jërëjëf rek nga ñëw ci suñu sant nañ bu baax sant nañ bu baax wallaay wallaay Diop ñu ngi lay béggee di la yóbbante nuyoo ci waa Gandigaal yépp amiin Diop yàlla na sëñ bi defar lépp rek te yàggal taxawaay bi dolli wér. amiin amiin amiin Diop amiin Diop. jërëjëf jërëjëf Diagne. jërëjëf Diop jërëjëf jërëjëf Diagne. ngi ziar bu baax euh, sunu xarit boobu doon woote di sëriñ euh, Modou Diagne ca Gantikal di ku baax ñoo nekkandoon Makkatal Mukarrama nit ku baax ku yiiw ku gëm sëñ Tuubaa ñu ngi ziar sunu soppe bu ñuy wax Serigne Cheikh Ahmadou Bamba Fall taalibe Cheikh Béthio Thioune moom Serigne Saliou.

di nuyoo bu baax a baax di leen bége di ziare sëriñ xaadim Guèye fële ca parcelle di suñu soppee bopp di ziare sëriñ xaadim Guèye ca kër Masaar moom it di suñu soppee ak Baye Fallou Guèye di ziare njaboot ga bu baax a baax a baax di leen bége ci seen émission Fawzeyni ah, di ziare waa kër Masaar yi soppe yépp a ngi kër Masaar di siyaare bu baax a baax waa Tiwaawan Pël waa Koonul Ngalam saa su jot ñu ñuy woo di ndembi ko émission bi di ziare waa Pikine bàyyiwunu fenn ku mel ni sëñ Fallou Guèye sunu xarit ca Pikine taalibi Cheikh Béthio ñu ngi koy ziar di ko bége di siyaare fii nag waa Dakar bàyyiwunu kenn waa Géejawaay waa Tunaal Sëriñ Asan di siyaare waa Sandaga di siyaare soppe yépp fu ñu nekk ci àdduna bi deen bége seen mbokk fi nekkoon Abdoulaye Diop Bichri ci seen émission faw Fawzeyni di leen joxaat di daje ci beneen aljuma di nuyu bu baax nag sëñ Mansour um, Guèye mi nga xam ne moo nu téyeloon caméra bi ba mu leer nañ ci seen pët ngeen koy seetaan waaye di nuyu sëñ Babacar Diop di siyaare sëñ Mbàkke Mbóoj ci réalisation bi soxna Ndey Njaay madame Badiane di siyaare sëñ mañaan bu baax a baax a baax di siyaare sëñ Atumaan di siyaare sëñ Ousmane Mbuub di siyaare mboolem mbokk yi ci kër gi tam di fi amal ay émission borom xam-xam yi ba ci caméraman yi ak techniciens yi ba ci gardien yi ci bunt bi ñépp ñu ngi leen di jox seen wàccuwaay seen mbokk la woon Abdoulaye Diop Bisri wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin على استقالي بفرود وسنن الحمد لله الكريم سلما على استقالي بفرود وسنن الحمد لله الكريم سلما يا